mooy sunu mbar baari Amadu baaraay Madu Lamin Madu Lamin baar Aziz sama may sunu mbar baari Tuuba lay Ndar may bay naan bari saxaaya ayub jaata Màkka moom la nu yenu andi Tuuba mooy tay fak Seex Faatma bari saxaaya nu duguli daaw jëm kaw nu duguli xuusim ndox otaraay Tuuba lay dem bari saxaaya ataraay Tuuba day dem maari sandaar ma ya ca moom la nu yenu andi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi na ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokki jullit yi xam ngeen ne umma islam lu tiis lu metti wàccaat na seen kaw waaye nag dugg leet ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bés bi nuyu woon nag ba ñëpp jaaxle ba tiit waaye xam ngeen ne xaadimu rasul yaakaar yi jaam yi bés bi nuyu woon na ko 1927 ci njaariñ ñu andi ko fii Touba waaye nag euh, jamono yooyu yii ak jamonoy tey len rek la ndax ki fi noonu jóge fu muy Xaadimu Saakaar yi jàng tey jii nag xam nga ne Cheikh Sidil Muxtaar xalifatul am moom la sunu borom summi mbubbab coonam solal ko tey mbubbum nooflaayam mu gànne àdduna 1924 boo ko xoolee ba mi ba 2018 xam ngeen ne gàcc nga laama lamata def def na ko lamata wax na ko ndax bi mu toogee ñëpp dañu jàppoon ne lu muy def. waye ba mu toogee dana yok liggéeyub seigne touba nga xandu ne ba mu mu yok ñaari soro waye bu ca yemoon sax mu bax waye dede da jël bu Dakar fa seigne touba waxon ni iza zakartu zalikal mabita wa zalikal lamira wa shabuta tar jihad bil armahi walakin lakki nafsa saba an al mahi guddi goge seigne touba ne su ma ko fàttalikoo damay bëgg a jël ay xej ak jasi jeflante ak nasarani yi Seex Sidil Muxtaar ñëw taxawal masalikul jinan nga xamantene bu sottee ba yegg ba mel na mu war a yegg dana gàcceel mbooleem lam fa fekk waaye dina siggil mbooleem talibe yi siggil mbooleem jullit yi waaye nag dina lu fàttale dina lu fàttale la nga xamante nag mooy fanaanuk Sëñ Tuubaa googi muy Masaalikul Jinaan muy jumaay gu tedd googu nga xamante ne bokk na ci naali Sëñ Tuubaa yi Seex Sidil Muxtaar yeggale ko tàmbale ko ba yeggale ko ndax man damay wax ne yeggale la ndax mu waxoon ne bëgg na ko ànd ak bu ubbi ko waaye Sëñ Tuubaa du fi jóg kon lu fi mën a nekk Sëñ Tuubaa la doon te banaani yel baqi bin an raq bi xëyri xel mi illa jinaani baaxil siñ gaa waxoon tabax yi ko borom bi tabaraka wa taala tabaxal bokk na ca jumaa yooyu te zaqali xëyri lahu fii ma yon ba ma saa xel bi wa ala shan ba joxoon yooyu nga xamante ne moom la yàlla joxoon Xaadimal Mustafa mu ñaari jumaa yooyu waaye mu ca xam nga mbirum suñ Tuubaa saa sunde yokk waaye du wàññeeku bi la yow mi diin kon nag ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey wax na ina lillahi wa inna rajiun waaye tey ji ñu ngi ci kër suñu Xaadim Mbàkke mom seigne Aziz Bara nga xamante ne kenn la ci njabootu Seexul khadim waye kenn la ci geur Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kenn ku ne warna baye xel ne kenn ku ne amel nga ko njukkal kenn ku ne amel nga ko ak mom Cheikh Lamine Bara lu waral lolu moy gën ka dina mo yombal lépp mo defal lépp mo xet li ñëpp ndax ku baye sa kër baye baye sa kër nday baye say talibi sàkku ci ngërëm kala may ngërëm ca bés boobu yi mënatoo koo fàtte te li ëpp ci teel yi ba kër ba Cheikh Ahmad Lamine Bara gan ñu àddina ah, ca bàyyee ko ca néegu soxna Aminata Lo mu tedd ma kër ba sut këroog la siwal Xadim wàcc ñu bëri te rek moo leen taxoon a jóg eh, xam ngeen ne ngërëmal yàlla rek moo am solo isil muridu laa yuridu abada ghayra rahmana ay suqa sada bambaay baayam baay saxaaya bamba doo baay sëñ jiile maa ngi daan ak seer jiili bambaay baayam baay yaa ma may sunu mbar baari Ibra Faal ndandag ndar bari saxaaya wax leen Seex Ibra Faal ndandag ndar bari saxaaya waaw ah, waaw jaajëfati war naanu jaajëfati war naanu ku ko waxul it war naa la bari saxaaya Hallelujah. Lord الدور على بيرنا أجابني أجابني وجدني أمني وتقريبي آدم آدم بنية الإيمان وسواه am ba da nga xam ne am na am kenn boo xam ne ni tax na ci waaye nag dalale ko ci sunu xel rek ndax yow waa itam moo mel noonu ndax ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu fi jógee dañoo def neen yoonu murid xëy na fa lay yem bi ko Cheikh Mouhamadou Abdou Fadel Mbuudo ñuy fàttali naqar yu bëree bëri ñu di ko topp leen noonu bu bëri ci démb bi nga xam ne Cheikh Saliou Mbacké moo fi jógee ci juróomi Xaadim Rasul te ñu defoon ne moom keew ku koy ñàkkati rek ñu amati dara lu ko jógee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké wuutoo dañ ne ak alhamdulilah fii day mu fi woon a ñàkk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Saliou xool yi wéet jàqare jëw nga am jaaxle waaye di Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké euh, Cheikh Sidi Moukhtar bi mu toogee dal la dal xel yi jiwaat yaakaar bu baax a baax ah boolewaat jullit yi boolewaat murid ñu nekk benn yàlla sagaloon ko ci yàlla suturaaloon ko ci kenn ku nekk xam ne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ba mu fi toogee ba léegi lépp fu ñu fi mën di dem ñun ñi nga xam ne dañuy dem léeg-léeg demal sëñ bi buñ fi mën dem ci mbokki jullit yi nga xam ne duñu ay murit waaye ñoo Cheikh Seydi Moukhtar ñoo bokk lislaam buñ demee nañu sagoo Cheikh Seydi Moukhtar di ko muy seen sag ndax di nga xam ne benn la woon ne diine ji te sunu borom nag dimbali woon ko ci sagaloon ko ci suutulaan ci mu nekkoon nit koo xam ne ni nag booliwuloon dara ak wax léppam jëf la woon te defe naa ne tey jii kenn ku nekk xam nga ne Cheikh Seydi Moukhtar jëf na yoo xam ne ni waxuma la yoonu murit waxuma la lislam waaye adduna duñ ko fàttee dee mukk mhm. saa su ne dañ koy fàttaliku ba adduna di digu ndax ay jëfam yi nga jëf na ko damay waxtaan ak kenn sànq ma ne yëf de ab tool la rek mhm. kenn ku nekk da nga am aw saf saw saf fu mu jeexee nag nga ba nga noppur yi te kenn du bay sa sasu morom kenn ku nekk saw sas ngay bi Seex Seydi Moxtaar bay na aw sasam ba mu set wecc li ci def nag euh, sasu caama loolu mënu koo bay te yaakaar na nag kenn ku nekk xam na ne tool bi set na wecc kon daal li ñu def mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla wane la ak ma baayam wajuram bu baax la Cheikh Mouhamadul Amin Bara mu wane la ak maamam ja Xaadim Rasul mu tekk ci loxo yonente bi alayhi salaatu salaam tabal ko àjjana di ñaan yàlla nag subhaanahu wa ki nga xam ne mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke doonoon lépp sëñ bi sëñ bi doyloo woon ko ci saahir doyloo woon ko ci baatinam mu doon loxo ndey jooram mu wóoloon ko diineen mu nekk tey jii moom la yàlla yan yan boobu ñu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla di woyof toll lépp lu Seex Seydina Muxtaar tàmbali la ca desoon yàlla na koy yeggale ak sago ak wér-sal ba naanalal maamam ju baax ja Xaadim Rasul naan ëpp yi fi ndax Sëriñ Tuubaa moo mel noonu amul tànki gannaaw ndax dañuy wax ne ku ñëw rek li ñuy li ñuy wax ne euh, tey Sëriñ Tuubaa gàccal na démbi Sëriñ Tuubaa te mhm. tey ëllëgi Sëriñ Tuubaa tam dina gàccal tey Sëriñ Tuubaa ndax kenn ku rek yaakaaroon na ne suñu dundee ba ci sëtañu doomi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf def woon nañ ne euh, am na loo xam ne ni kenn duutu ko mën a waaye kenn ku nekk gis na Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké Fadilou ñëwee bi mu ñëwee ah dafa mel ne doomi sëñ Touba musu fee jóge loolu nag mooy war a ne tànki sëñ Touba amul sëñ Touba amul tànki gannaaw lépp ñu kanam la ñu Cheikh Seydi Moukhtar itam bi mu ñëwee léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne sax dañuy wax ne kii diw mënu fee def lu fi doomi sëñ Touba def loolu ma ne leen ah kay kii surtout Serigne Touba bu mënut a def li fi doomi Serigne Touba diplôme rek kon day mel ne Serigne Touba tànki gannaaw la am Serigne Touba lépp kon kanam lañu kon surtout Serigne Touba mën na fee def loo xam ne doomi Serigne Touba defi ko loolu ndax loolu mooy wane ne Serigne Touba lépp kanam la jëm amul tànki gannaaw hmm. kon Cheikh Sidi Moukhtar yàlla ñu ko yàlla fayal hmm. ca tax ñu ci barke waaye Cheikh Mouhamadul Moutax itam yàlla yàlla sàmm ko yàlla ko yàlla na yan bi lépp lu magam di tàmbali woon naaloon ko yal na ko koy yeggaleel koy naal naali boppam yàlla mën na ko yàlla na ko defal ci barkeb Sëriñ Tuuba ñu ngi leen di sant yéen nag yéen bokki taalo bi ndax gis nañ yéen rajo yi surtout bi xew amee wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne sori woon nañ lool yëg ko wala ñu dégg ko doon na jafe waaye naaw yàlla ak yéen ñu ci bari suñ ko déggee seen média bi lañ koy déggee kon nag leen tam amee nañ leen di ko tax ñun nga xam ne ñoo njaboot fu ñu mënta yegg jotal leen fa ne leen Cheikh Seydil Mokhtar noppalu na yéen média bi àggal leen dem kon nag ñu ngi leen di sant ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne tey jii moo nekk euh, xalifam Cheikh Seydil Mokhtar waaye nekk itam ki mag tey jii ci kër yi sëti kër Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké ci turam maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf waaw sunu mbar baari